Mbacké waaw ba ma la gisee doole ci ma xam la xam na Serigne Touba dëggu na ci yow boobu laa la bëggaloon sama bopp ngi Serigne Touba boobee ak sa bi xam yow ko eh, nag moom moom la suñu moom bind nii bind nu nekk ci adduna xëy na kër kër du ci mën a ñàkk te it kenn ku ñu ne yàlla dogal ci moom il faut que mu fekk fekk mu yëngatu dama bëgg nga xam ne bëgg Sëriñ Tuubaa te muy dëgg te yàlla tax moo gën a àdduna ak ci biiram wallahi wallahi wallahi bëgg Sëriñ Tuubaa muy dëgg ngir yàlla moo gën a àdduna ak li ci gouvernement yi ci àdduna yëpp bëgg muy dëgg moo gën moo ci ci dund gën nit ki dundam képp jox gouvernement yëpp jox ko àdduna ak li ci biiram lu fitna rek coono rek jaaxle rek <laughs> tiis rek <laughs> képp dund gi boobu lay doon ba jeex dégg nga noonu bu baax santal yàlla dëgg la lii yëpp yëpp lépp na xëy na nattu la yàlla li mu dogal ci nit mu waaye lii dëgg yàlla dafa wax eh, bu fekkoon tey moom mi ko bind moom ko da ko yemale woon ak laafu yoo laafu yoo maam mu yemale adduna ak laafu yoo bu fekkoon ne loolu na ko bu ko yemale adduna ak laafu yoo bu ab yéefa du ci am kaasu ndox bu mu naan da ci lépp yërmandeem mu rek ngëneem la waaye yàlla mooy dëgg li mu wax mooy dëgg waaw <laughs> exemple biñ ko gisee bañ gisoon buñ ko gis noppee gis gis bëggu fi dara gisu fi dara nekku fi ci dara lu lu borom ko noppee gis loolu mooy dëgg waaye nag yàlla mooy defee nii itam ci coobareem waaye yàlla nañu yàlla gindil boppam te xiir nu ci boppam ci xiir nu Serigne Touba lii rek mooy wax ji na ma la bëggi woon xam ne Serigne Touba dëggu na ci yow ma bëgg la ngir Serigne Touba xam ne Sëñ Tuubaa dëggu na ci yow ma bëgg la ngeen gis Sëñ Tuubaa dara soppiku ci ba ci sa jotaay bi loolu rek moo la ne moo la fi nekkal. Allahu akbar